man dugguma ci seen biir de waaye dama gis yeneen parti engagement bi ñu ci am surtout di dem surtout sur le terrain bay mën a relever ay couac man gisuma ko ci parti démocratique sénégalais. xam naa ne doo dem ci benn benn fu ñuy waxee ni fii commission d'inscription la balaaj ana représentant parti démocratique sénégalais bi ñu ne la dafa añ yi wala dafa reeri day toog rek teel a xëy guddee wàcc ba keroog teel a xëy ba président bi signé jox ko kotaam mu bi ñu bind ci journée bu mu dem. parti démocratique sénégalais nak du parti bu ndaw dafa xam dafa mën fa yag ci pouvoir dafa xex dafa def dafa def 27 ans d'opposition def 12 ans de pouvoir ñam neex ñam naqari xam buy metti kañ la war a wax xam buy metti kañ la war a noppi président Ablaye Wade toog fa mu toog di joxe ay directives yoo xamante ne c'est des directives yu yu yu yu yu yu potent yoo xam ne ñun ci la ñuy topp mooy boo waree wax mu ne la lii boo ko waxee ñor na bu ñorul mu ne la mën ngeen a taxaw xaar terewul parti bi fonctionnement bi muy fonctionner di dox di relever ay couac mi ngi koy def dans la plus grande logique te waxul mm.

ñun suñu électorat mësul varié dem nañ sax intercoalition on a eu 460 quelques mille voix suñu électorat ba Ablaye Wade 2012 ak tey municipal non la te demuñu intercoalition législatif idem kon ñun suñu troisième âge troisième âge maa ngi leen di sant di leen gërëm ak ñiy ñëw ñu bees ñi mhm. gis nga primo votant yi man mi di wax day fa ma toog ca sama kaw kër ga laa toog ak sama télécommande ak sama ñaari appareil yu ndaw yi li ma ci dugalagum man li ma ci inscrire gum ak barke Cheikh Abdou Lahad nag laa lay wax te bu ma ko gisee rek pare na. li ma ci inscrire man waxuma sama commune rek waaye commune u jàmbur yi may wër rek di ko fa inscrire yow xamoo nu mu toll.

ñun waxtaan ñoo kenn te ñun duñu waxtaan ak kenn ñun suñu bopp la ñuy waxtaanal ak loi ñun suñu bopp la ñuy waxal ak loi bii nga xamante ni tamit loi la loi sénégalaise que bu ñu neexee ñu ne jàpp nañ ni loi la bu ñu neexee ñu jàpp ni genre loi bu ñu muur la nga ko maxana mais loi boobu ngay wax moom moo may tey Karim mu nekk ci list yi Karim Wade ci liste yi di dañ ko cee Parce que Dani a une condamnation de 5 ans. Après ces 5 ans, Karim Ouad redevient électeur. Ce fait qu'il y a un calcul correct. Karim Ouad, il y a presque 6 ans 7 ans, il y a un Ce fait qu'il y a une loi au Sénégal. Donc, même si vous avez un amnistie, aujourd'hui, la loi électorale permet à Karim de se présenter. Je ne sais pas amnistie, je ne pas man amnistie concerné wu ma concerné Karim Wade concerné le parti démocratique sénégalais. mais article hmm. L 31 L 32 du code électoral bi bolé ko ci fichier bi. mais Karim Wade est électeur plus de cinq ans. Ndeye Fatou Karim Wade est électeur gis nga ba koy xam Karim Wade n'était même pas déçu de ses droits civils et politiques Lolo, ah, man dama vous ni bu féké dañuy waxtaan rek té yalla rek tax Sidiki Kaba el Duguti Karim Wade juge bi prononcé il a été déçu de ses droits civiques et politiques cela n'a pas été pris mm-hmm. mm-hmm. Mm-hmm. en compte en 2019. Lolo pris en compte. Madame wax Sidiki mais a été pris en compte en 2019. en compte en 2019 candidat. pris en compte en 2019. loi fi duñ fi tok bam mu rek ñu ne loi bi dañ ko sàngaat dañ ko woddaat dañ ko muuraat li loi prévoir c'est des textes c'est des textes universels. Oh non fi ñu waxe moy loi bi leen ko xañoon loi bobu mo fi nekk ba tay xam nga yaa wax les propos. Euh, de loi boobu la koy 5 ans 2019 amago 5 ans lima wax kay c'est clair et net et audible dégg da nga koy dégg dama la loi bi wax ne yow ñu la dindé ci liste électorale yi pour ben motif pour 5 ans dangay den wat ci liste loi bobu tay mo japp ci Karim Wade ba Karim Wade wara delu ci liste sans bokuma nak li ngay tudd non yow rek yaa ko tudd parce que man man xawma ma fu mu nekk ci yan tiroir man tay la jóge sama tiroir tay gisuma fa ben loi projet de loi bo xamantene concerné la lolou ngay tudd li ngay tudd nak xeyna kiko defar mom la arranger alors la question revient toujours mom moy kañ lay ñëw parce que yag nañu ko wax mais je pense que bion

Je yow yaa jàpp ni man xaw exactement li mais man xam naa li man munuma di politique ci benn parti am information joxe ko en direct à la télé hein est-ce que am la bonne information. vous n'avez pas la preuve 2019 passé élection yooyu am ñu parti parce que Karim dig na dimanche. avant ñuy ubbi ak campagne électorale te Karim gisuñu ko dégguñu ko amuñu explication ci moom kon su ngeen ñu ko waxee avant 2024 est-ce que ñu dinañ jàpp ne Karim dina fi ñëwaat parce que même même même cassette bi la ñuy tegaat quand même. waaw jàppal ni même cassette bi la ñuy tegaat man waxi kilifa laa lay wax. Karim Wade bu dee deux mille 2019 dafa la ni damay ñëw man mi toog naa fii 2019 nga wax ma man ne damay day ñëw ni fii bu la neexee ariñaanal cassette bi rek man ngay gisaat. du dara bu may changé wala couleur mais man la toog naa fii ñi la 2019 dina ñëw waa ñëwul dafa tax ma dema ah. ka dem daf koo neex mu bëgg a dem ut alibeem jaara ca dem waaye moom Karim moom toujours quand c'est bon quand y a les décrets les signatures là c'est Karim le bon c'est Karim le généreux c'est Karim le brave mais parce que y en a plus rek lu xew rek c'est Karim moom la ñuy wax ni Karim moom daal baaxul Karim lii ñun ñëpp nañu d'accord ci ne nit jaam ak pexeem moo ustaas Muhammad wàllu ma yàlla ak dogalam am na nu ko yàllay waxe de ci alxuraan kullu shay'in sababu nit mën nga sabablu <laughs> li kulli shay'in sababu mais ñu bari dem également mën nga sabablu yàlla defu ko yàlla mu ni boo sababloo itam ma jàppale la waa Karim sabablu na yàlla jàppalewu ko sabablu bii mu sabablu. est-ce que mënutoon ñëw même bu dee day wàcc Blaise Diagne sax ñu. jàpp loolu nag ci Karim la dépendre dépendre sa calendrier.